baaw nga dangay ñëw rek Modou ñun xale yi bàyyi leen xale yi korom aja dafa nangu nangu rek jarul buurandoo. dem jaama saf wala. xam nga ne Modou buy bëre xale yi ñoo koy supporté ñu ñooy yuuxu ñu ñooy jënd t-shirt yi ñu ñooy jënd sifflet yi parce que c'est normal dafa leen fay naar bi xolom rek su ñëwee def nii ci làmb bi mën na ci lu bëri tey mbër mi mën na fi créer ay cadre xale yi mën nañoo jàng à cause de jëmm xale yi mën nañoo góor à cause de jëmm moo ma jox kaye bi nee na may jàng mën na la yokk xale kenn xam donc loolu su ma déggee am na motivation motivation xale yu bëri làmb lañ bëgg waaye bu la neexee jàng leen war nañoo mën a jàng ndax suñu xamante ne teg nañ ko fa ñu ànd ak moom te ñëw garaaw te doy waar. loolu nekk nii. mais dama lay dégg wax wax doy waar. da nga ne Modou Lo bu amee combat xale yi ñooy jënd. ñooy jënd ñooy jënd soufflé ñooy topp ci tali di daw. kon bu ñëwee def lii dafa fay naar bi xoromam. ñu koy félicité bu baax ci initiative bi. ak waaw. un million jox leen fële xale yi nekk Bambey. Bambey moo lañ ma wax ma loolu ma dem ñu félicité bu baax a baax a baax alors mbir la. c'est le partenaire Sénégal aada ah, ñëwal jege ma ñëwal jege ma fii ak waaw combat bi jëm ci combat diggante Modou Lo ak Siteu. man damaa mujjee tiit sax. waaw dañoo mujjee tiit état bi ma gis si Modou Lo damaa xaw a tiit. ma wax su ma su ma su ma gisee état bi. waaw. gis état promoteur bi sax dafa jàpp ne moom promoteur bi moo bëri. mais Ades na xam nga ne internet yi amuñu fayu presse. maa ngi bëgg a ak sama tànk bi di soox. waaye maa ngi bëgg a wan sénégalais image. bëgg démboo Ndiaye dama def soog sama moto. waaye damaa jugaat pour wan sénégalais li ñuy dund. ndeysaan waaye. moo lay fay ndeysaan c'est comme ça Ini biar, bukan manfaat. Ini amal. Sampai lagi. dégg soble dégg soble pour gars yi ñu ngi leen di leen jox seen xaw ma naka lañ koy Bon, allez, allez, deux minutes. Les enfants, silence Get up. am sa bopp. Silence a été choisi comme la troisième et dernière étape de cette journée. daaw ñu ngi fi woon ànd ak Mansour Ba fii la ñu commencé woon mujjee unité 10 tey mu ne tey. damay dem commencé ci unité sama doomu ndey sama xarit sama soppe sama wóolare Modou Lo foofu laay commencé mujjee fii tey unité 19. di nuyu le délégué de quartier monsieur Fall di nuyu bàjjanu gox mu ngi dana toog madame Fatmata Ba mais di nuyu aussi directrice école bi madame seen mu ngi nii toog moom tamit di nuyu le personnel enseignant bàyyiwuñu parents d'élèves bàyyiwuñu élèves bàyyiwuñu kenn. lii nag Mansour dafa sacrifier à la tradition mooy. apporter son soutien aux établissements scolaires pour xale yi la ñuy wax concept ubbi tey jàng tey ñu mun vraiment réaliser loolu parce que bu ñu xoolee démb la école ubbi même pas 24 heures mu ñëw ne fourniture yaa ngi nii loolu nag su ko Mansour mu ne dafa am ñu ci àndal jëlali naa Modou Lo mi nga xam ne nii bu Mansour pikiroo mu naan fay doom di seen boo ngeen xam ko ràññee ko kaye yu baax yi bi yu baax yi matériel scolaire bu baax tey ñoom ñoo ñëw tey ne Mansour dañ lay jàppale ci campagne bii ngay def kon nag dañuy daal di jox kàddu gi ki nga xam ne moo fi représenté di Sengo muy madame Khady Niang mu yëkkati ay kàddu wax ñu partenariat boobu gunge boobu ak àndandoo boobu xam ne ni tey gis nañ ko ci diggante di Sengo ak jàmbaar production bu Mansour Ba Khady nga yëkkati ay kàddu. asalaamaaleykum maa ngi tey rafetlu partenariat bi ñu def entre jàmbaar ak Disney ak lutteurs yi. tey rafetlu rafetlu partenariat bi ñu def entre jàmbaar ak Disney ak lutteurs yi di def lu dul di leen remercier Disney mi ngi leen di remercier bu baax a baax. ay fan yu tuuti jox ko suñu élèves yi donc loolu dinañu permettre ñu gën a sóobu gaaw ci liggéey bi ma koy jaajëfal di jaajëfal équipe yëpp di profité aussi di wax ne lépp lu ñu am tey def na ci loxo ko jooyee à hauteur de des de mille jeunes voilà c'est lui qui paie moom moo koy fay machine ba ma ko jooytoo ordinateur photocopieuse ñuy moo jigéen loxo def ci bopp ñu gën a yokk machine bi donc tey ñu naa lépp luñ doon jooy donc na ko faj na ko donc dañ koy wax merci di jaajëfal sama mbokk mi Modou Lo di sama bopp sama doomu ndey maanaam tey la ma doog a gis mais xam na ne ay mbokk la ñu voilà parce que man bopp yaayam laa ñu ko di jaajëfal waa di marque boo xam ne vraiment man mii particulièrement si laa jàngee marque bis Tembo bi tey man si laa jàngee kon su ma demee ba samay doom terminer cette journée ici à l'unité mhm. ah, C'est vraiment une fierté pour, moi en particulier. Que cette caravane mhm. se termine ici aujourd'hui à l'unité Qui est mon fier Je le dis et je le répète. C'est quelque part où j'ai grandi, où j'ai fait vraiment euh, la majeure partie de mon enfance. Aussi, ce concept est d'une importance capitale dans la mesure où, que ce soit dans la promotion de combats de lutte, que ce soit dans le milieu sportif en général, il faut que les peuples de voix, c'est-à-dire les lutteurs qui sont élevés des populations, puissent sensibiliser les enfants. En quoi faisant, en allant dans les établissements scolaires, en leur incitant à apprendre, en les incitant à rester à l'école, en leur montrant la voie, parce que qui connaît Morlo sait que c'est un modèle. Comme disent les Anglais, is a role model que les, les enfants doivent s'inspirer de lui. Maintenant, dire que l'innovation en matière l'événementiel consiste aussi à faire euh, preuve de vraiment euh, de s'investir dans des activités citoyennes, aussi sociales, de contribuer un temps soit peu à l'amélioration des conditions de vie et d'existence de concitoyens. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, je ne saurais terminer sans pour autant remercier la directrice qui certes a dit que je soutiens l'école tout le temps, mais aussi Euh, elle et l'ensemble de son équipe ne ménagent aucun effort vraiment pour la réussite de ces, de, de ces innocents enfants, de ces jeunes qui font tout euh, pour, réussir leur, leur, Aussi, vous dire que je suis très heureux de toute la structure Jambar Production la presse aussi qui est présente euh, remercier l'ensemble des journalistes qui, sont ici. Je ne saurais aussi terminer sans autant remercier les la marque Distingo, mhm. qui m'a accompagné cette année. Mhm. Vraiment, euh, je remercie beaucoup à travers euh, son directeur Mohamed, qui vraiment qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée et de la journée qu'on va organiser demain. Maintenant aussi terminer par remercier mes amis, je ne dirais pas le mouvement des Djambars du parce qu'on est des amis, mhm. ils m'accompagnent partout, on est partout ensemble, les remercier, leur euh, tey nga ñëw unité 19 gannaaw ba jógee unité 10 jaar 11 Mansour jox la cër boobu mu ne tey yow yaay joxe fourniture bi ci turam tey lan ngay wax école bi xale yi enseignant yi mooy surtout nag distingo bi nga xam ne tey moo leen jóge waaw salaamaaleykum assistance bi directrice ñu fekk ñëpp vraiment di am contentement bu baax a baax daanaka Mansour waxu na lépp vraiment moom dañ koy félicité di wax li mu mën yàlla yàlla yokku chaque année muy a yokku parce que lii du benn yoon du ñaar ñett ah. fii rek la koy def fii la dëkk nag mooy feeku mais fii rek la koy def daal ku yokku da ngaa di sengoo yokku bu baax dañuy ñaan yàlla gën a yokku chaque daal vraiment Mansour lañ koy ñaanal mouvement di jàmbaar maa ngi mujjee sama sama bureau muy lancé mouvement di jàmbaar Sénégal fii ci école bi. assemblée générale bi. waaw waaw waaw yéen a vraiment daal di ko remercier yàlla bu baax a am. xale yi tamit ñu góorgóorlu ah di soññee ñu rëy la ci ñoom. ñu góorgóorlu jàng bu baax a baax maa bàyyi ko bu baax vraiment kontaan nañu. ñu ñëw fii fii ci biir. tàccu leen Modou Lo. d' accord waaw délégué les excusez moom ci kër gi la bokk. voilà mu ngoog la remise symbolique s'il vous plaît. Voilà, Mougo. Applaudissez Distingo, s'il vous plaît. Voilà, guys. Et bonne année scolaire.